asalaamaaleykum mbok internet yi nuyu naa leen dal len ak jam ci sen football TV di len wax di len jaajeufal bu baax ci commentaire yi la fois passée la vidéo passée avec Mohamed Alpha mhm, mhm. di len remercier bu baax di len wax soxla na sen encouragement trop parce que day tax ma gëna évoluer avec le temps légui ñu ñëw ci point ñu waxtane ci

waa tey Mouhamed ñu ngi commencé ci football euh, local bi. Mhm. parce que gis nañ match bi passé c'était AGEL contre Casa Sport. Mhm. gis nañ ci violence yu doy waar. Mhm. léegi Mouhamed yow loo ñu mën a wax ci violence boobu. ñaawlu nañ ko trop loo ñu si mën a wax. waaw wax nga dëgg mooy final mooy demi-finale euh, Casa Sport contre AGEL xam nga donc euh, ñu joué ko fële dëkku Casa Sport mu nekk benn match bu xamante ne Sénégal gi. au savoir que Casa waa waa Casa Sport ñu jël championnat.

victoire ak défaite lu mu métti métti euh, ku nekk war na mën a parce que yenn saa yi day neex yenn saa yi mën a xari mais sur ce match précis li ci xew ñëpp xam nañ ko comme ni ñu seraane néew temps damay xon don xon parce que j'aurais aimé peut-être que benn Alioune Badara xama donc Fatick bi xama dañ ko xam si géru si discipline am ay coéquipier du côté du Sénégal ci Coupe d'Afrique bi ñëpp ko wax ba ci entraîneur bi j'aurais aimé kooku bu muy xom mas bi jeex na mu bàyyi ko mu def limuy def parce que jeex na temps additionnel la mhm. donc euh, bon li ci am am na si ñu koy regretter di ñaawlu di ko ñaawlu bu baax baax ci sport bi parce que day yàq sport bi day yàq sport mhm. parce que nek yow bo soñoon tay ji nga and ak sarak ah mais bo gisee image yooyu da ngay ragal ne est-ce que war naa yóbbu sama rakk foofu day day day suuxal sport bi day suuxal sport baaxu ci xam donc euh, ñu ñaax suñu suñu suñu sénégalais yi rek xam mhm. ñoo bokk football bi amul le passion la euh, di ñaax mu bañ fa amati donc voilà point bobu loolu la si xalaat loo xam di ko lu rek. jaajëfal nañ la bu baax. Mhm. léegi ñu ñëwaat ci benn point bu am solo. Mhm. ci joueur bi nga xamante ne nii instant yi mhm. ñëpp ngi koy waxtaanee. kii joueur la. sénégambien la. il s'appelle Lamine Diadio. c'est un joueur extraordinaire. instant yi ñoo ngi xëccoo entre Sénégal et Gambie parce que sénégambien la. léegi ban point nga ñu mën a développer ci xale boobu. xale boobu nag nekk na joueur boo xamante ne mën nañu wax ne jamono bi comme ni ko waxee mooy phénomène bi ah. poids bu xamante ne très technique. Mhm. très virevoltant mën a dribbler. Mhm. xam donc euh, mooy genre joueur yi may wax ne souvent boo leen gisee ñu football benn match rek nga seetaan leen stade jaral na la nga mhm. déplacé wu waa seetaan leen quoi parce que non seulement spectacle bi mu def la terrain dribble bi fukk jeunesse bi insouciance totale xam franchement il est spectaculaire. Ah maintenant comme ni nga ko waxee mën a jouer Sénégal comme mën a jouer Gambie xam nga donc man defal naa benn vidéo posé Sénégalais yi à peu près mu def benn sondage par rapport sama sama commentaire yi. 90 des Sénégalais en bon non non non non mm-hmm. actuellement Sénégal mm-hmm. je pense que mon Sénégal est à l'aise mm-hmm. football est donc pourquoi pas ici ah, parce que football euh, équipe locale mais Sénégal ah, c'est la même chose C'est la même En tout cas, mm -hmm. c'est un phénomène. Uh -huh. Il faut admettre que franchement, bon pied, c'est quelque chose quand même. Mm -hmm. Donc, moi, tout le temps damay wax ne jour pour me jox la sa cër dëgg damay xaar grand rendez-vous c'est quoi les grands rendez-vous tey jii moom day nak TFC mais il te marque un but mais extraordinaire TFC il bu mag la instant yi nii nii Sénégal mm-hmm. mu dem demi-finale xam contre Asel saa yi gars yi jaaxle mu tegal la benn enroulé bu mais bu extraordinaire xam nga donc yi violence bi moo ëpp ba ñëpp violence bi la wax mais ba duggee si réseaux sociaux yi am na benn jour bu xamante ne Sénégal gëj na am joie bu mel nii mhm. xam nga donc Pape Matar bi mu fi ne jaar na fi Ibrahima Niane jaar na fi keneen ak keneen jaar na fi mais kii jamono bi aussi tamit bu ñu waxalee yàlla rek sàmm naa Sénégal bu fekkee am sànq da nga tudd Pape Matar Sarr. Mhm. legui nañ ñëw ci pam Matar Sarr. Mhm. gis nañ mom il fait partie des nominés. Mhm. pour le Golden Boy. des Ballon d'Or. mooy Ballon d'Or jeune wa 2022 bi. il en fait partie. legui loo ñuy wax fierté la et tout mais lan nga ñuy lan nga lan nga ñu mëna wax ci nomination bobu nomination déjà fierté la déjà nga gis benn liste xawma ma ñaata jours. nga gis drapeau Sénégal mais fierté bu mag la déjà c'est une chose. il uh-huh. faut savoir que Kaly sax sax bokkoon na si xam donc mo ngi nek euh, jamono bi euh, bal sénégalais la aussi tamit mm-hmm. cette année c'est c'est pas Mata xam donc ça va être extrêmement difficile mu gagner ko vu la concurrence franchement ah xam donc yenen boy ay pédri keneen ak keneen jël na fi mais drapeau mu ngi drapeau mu c'est déjà fierté fierté bu baax ba pourquoi pas lui et eh, eh bon man d'après l'autre jour waxtaan nañ ci man ak yow waxtaan nañ def nañ ci vidéo propre pas Mata mm-hmm, mm-hmm. donc son côté créateur son côté offensif bi xamante apporte nek en équipe nationale du Sénégal en tout cas bu bal yoon kanam liggéey mais il peut aller très loin quoi et même l'autre jour ñu ngi si doon waxtaan mu ne man Tottenham bon man gëw ma ne Tottenham dina fa football et tout yow nga ne ma non. gëm naa ne Pape Matar Sarr dina football ko Tottenham. j'y quoi. waaw yow nga ne gëm nga ko mais on va voir ah. c'est juste que dafa nekk dafa am benn entraîneur bu xaw a spécial un peu. mais mm-hmm. tout le temps tout le temps faire télé xam nga donc ñun bu ñu sañoon. comme ni ñuy déggé Sadio Mané ballon d'or mondial ñu gis mhm. né ballon d'or xalé itam ñu dégg ci sénégalais ah lepp lu xamantene trophée individuel la mhm. bu ñu gisee sénégalais jël ko dañuy content dañuy content dañuy content ça me rappelle un peu Edouard Mendy année bi passé rek bu ah. ñu def ay clean sheet da ngay gis né ci sénégalais trophée bu taxaw individuel rek ñu né Edouard Mendy ah <laughs> parce que ce dom rew la quoi dom rew mi la donc euh, pas mata sa bonne chance pourquoi pas gaay defal ko ay ñaan yu baax rek pourquoi pas mu jël trophée day ñew day ñew inshallah lu mëna nekk la légui à part lolu mhm. gis nañ ni Boubacar Camara. Euh, Sénégal ñu ko doon soxla. ba mu presque mom woné woon na pas ni mom dafa bëgg ñëw Sénégal. légui à la dernière minute mu choisir France. légui mu dem na France. il avait eu des problèmes là-bas parce que toog toogloo nañ ko bon. légui mais après dafa ñëwaat mu football mais après ça il a reçu beaucoup de critiques ci mhm. français léegi loolu loo ciy wax. Mhm. bon mu nekk ben point bu xamante ne bokk na si ne gën quand même si semaine bi. Mhm. xam nga donc euh, xam nga bu baax xam nga moom dama def ay vidéo yu dul tout Sénégalais yëpp ñoo xaar. man uh-huh. pour être honnête avec toi man maa ngi doon xaar mu photo ak moom. Ah nangam nangam bul bul xam tout prévu. xam uh-huh. mais aussi tamit à la dernière minute bon mu dem def le de de l'équipe de France même si man bon expliquer naa un peu. propos propos euh, le fait que Aliou Cissé c'est intermédiaire pour mën contact contacter je suis pas d'accord accord xam même si. Euh, le fait que mu choisir France bon man dama mhm. maintenant sur ce point par rapport à ta question c'est malheureux. je pense que euh, je parle pas pour moi, mais damay wax yeneen des nationaux yi mhm. ils sont plutôt réticents Madame, nous, ngi hésité France Sénégal les exemples, comme la. France boo ñëwoon Sénégal mais tu bi ngi lay jox. es à l'aise en plus t'es à l'aise like laaj ko Bouna Sarr laaj ko Pape mm, euh, Iliman il est à l'aise sénégalais dans dañ lay tàccu dañ lay bëgg dañ lay def sa xol nga dem du côté de France xam nga seen intérêt moo fi tu passes à côté sur les réseaux sociaux mais amul lu mu il n'a pas le niveau joueur Aston Villa mais il est moins, nangam nangam et on sait mm-hmm. qu'avec le retour de Pogba avec le retour d'autres joueurs mm-hmm. joueurs, c'est pas moi mm-hmm. c'est c'est pour mu dem ko mais ce sera mais extrêmement difficile alors que bu le Sénégal on sait que avec son talent mënoon na ñëw bon équipe nationale du Sénégal man daal benn jàngat laa si am pour yeneen biinus nooyu xool leen li ñu def bu Boubacar Camara mhm. xam boo boo fi nekk di hésité entre Sénégal France wala Sénégal Espagne xool leen le cas bu Boubacar Camara ça va vous faire réfléchir mën ngeen toog xalaataat am beneen jàngat par mhm. rapport ak di bàyyi seeni dëkk origine par parfois di dem euh, dëkk yi xamante ne parfois dañ lay woo rek juste pour bloquer la quoi mhm merci après l'union de Sadio Mané. Mhm. ci mercato transfert am bi et tout. Mhm. on peut dire que Sadio Mané il est d'accord avec Bayern Munich. Mhm. léegi lan moo accord entre Liverpool et Bayern Munich. léegi loolu lan nga ñu bon c'est intéressant donc euh, Sadio Mané doomu bambli bi xam mhm. doomu rew mi alalu rew mi donc lolu <laughs> ne nga que Sadio Mané mhm. euh dañuy sawar saa su def ci moom euh, ay vidéo wax ci suñuy xalaat maintenant par rapport ak transfert bi je pense que semaine bi bokk na li ci gëna a comme comme ni nga waxé danaka ñep mom moom waxtané euh dañ né mom ak ki di euh, Berne am nañu accord n'est-ce pas c'est ça amnañu accord mais il reste donc entre Berne Liverpool trouver accord mhm. donc parce que à ce qui paraît que ano. Bayern ne défend ay avance mais mm-hmm. Liverpool daf ko rejeté woon. Mm-hmm. après moom tamit découragé wul. Mm-hmm. parce que dafa soxla suñu champion d'Afrique Afrique. léegi loolu wa bon par rapport à ça je pense que dina fa parce que euh, nous ñoo ngi si doon en off. nga uh-huh. may wax ne Lewandowski day dem du côté de de de Barcelone déjà c'est quelque chose xam nga c'est à noter. et il faut savoir que entre le Liverpool jënd na ay yeneen joueurs boo xoolee. jënd na Nunez du côté waaw déjà du uh-huh. côté de Benfica 100 millions d'euros c'est c'est extraordinaire ça veut dire que préparer nañu l' après Sadio Mané. Mhm. Elle, l'année passée a commencé à ñu Luis Diaz. Mhm. donc pour euh, demee Bundesliga championnat allemand je pense que c'est un championnat pour Sadio ah oui on y croit waaw on y croit franchement mhm. non seulement c'est un grand club. nañ ko soutenir soutenir. les Sénégalais moom sax wax na ko ci boppam 70 pour cent des sénégalais dañoo bëgg mu quitter Liverpool. Mhm. moom wax na ko moom sax dem na ba xam loolu. Mhm. donc xam xam na ne propos ak bon peut-être problème problème Salah. Salah cër bi ñu ko joxul mu nekk 13e salaire Liverpool. ay Naby Keita ñoo ko ëpp salaire bon alors que Bayern Munich salaire bi ñu ko jox mais c'est quatre fois plus. c'est quatre fois plus. même si même par même bu ñu wax sa salaire. Mhm. moom je sens que moom bu demee Bayern Munich. avec le départ de Lewandowski Sadio Mané il va assurer. Mm-hmm. là-bas mon moo fay gérer. Mm-hmm. Mm-hmm. man gëm non man gëm que et aussi c'est un championnat pour lui c'est un championnat boo xamante il euh, y aura de l'espace quand on parle d'Allemagne moi il gars yi dañuy football qui ñu de di taxaw seen i def refuser le jeu. et on sait que Sadio Mané propre à ses qualités de vitesse de percussion de dribble. et de puissance. franchement mon est un top top top top joueur euh, du côté de Bundesliga en tout cas espérons que fii ak ay semaine euh, mu officiel. dinañ ci gëna am lu ñu leer. am lu ñu leer. Mouhamed jëfël nañ la bu baax. Mhm. légui nak lo ñuy wax pour mot de la fin après mhm. ñu sogay tëj émission bi. mot de la fin rek euh, di wax ne damay am contenté ak mbégte sa su ne di bokk ak yow émission vraiment t'es un vrai passionné et c'est qu'avec le temps le temps dinañ def mais émission yu extraordinaire et que fi nga japp ni fofu la et je pense que internet ñu war nañ la en commentaire que ne bëgg yóbbu dèjà balaa di xew. Uh-huh. donc euh, yoo cere dool ñeex <laughs> baax. waaw jaajëfal nañ leen bu baax yéen mbokk internet yi di leen wax kontaan naa trop. comme ni ma ko ubbee woon sànq rek gis naa commentaire di leen wax ngeen yokk rek mm-hmm. parce que ça m'encourage daf may gën a may fit. Mm-hmm. may ñëw toog fii jàkkaarloog yéen mm-hmm. kontaan naa trop. à la prochaine ba jeudi prochaine incha allah ci beneen thème jaa ngeen jëf. bye bye